ñëpp ñu wax alhamdulilahi rabbil alamin yëkkati kaddu wuutu njabootu Seydi El Hadji Malick yëpp waaye rawatina mbokk yi nekk ci tànt bi jël kàddu gi teg ko ci loxo alxaaji maxtaar kewe mu ànd ak suñu rakk yu tedd yi ci ndigalu xalifa bi mu jëlal ñu kàddu gi tegal ñu nuyoo yi tegal ñu ko ci loxo xalifa bi waxuma alxaaji maxtaar waxuma njaboot waaye ku mënoon ñëw ci turam rek jëmmam lañ lay xoole kon fa tabaarakallaahu kàddu yi matale na mat na xam naa mu mel ni rek dafa am lu ñu tënkoon jëme woon ko ci njaboot mu tedd gi waaye lañu bëggoon wax lépp yàlla dogal na ñu jiitu wax nañu mu mel ni rekk dañu toll ci nekk ci weeru tamxarit muy shahrul muharram mu bokk ci weer yi nga xam ni mooy yi weer yàlla tànnal boppam min al ashhuril xurum bokkit ci li yàlla wax ak boppam wa annahu chairatun min chaairillah nga xam ni wa man yuazim xurumatullahi fa innaha min taqwa alqulub fa tabaraka allahu ginnaaw bu ñu nuyoo xalifa bi ni kilifa yu tedd yi ni leen ñi leen ni ñu jiitu ni ñu leen nuyoowee ñu ngi leen di delloo nuyoo ñoom itam di leen ziyaara ci bés bu tedd bi waaye di leen ndokkeel ni ko alxaaji duutu kenn dee waxe léegi mu bëgg tibb tuuti rek ci li ma bindoon ma ñaan ko rek mu yëkkatil ma loolu ñu xam ni li fi nekk du ma ni nekkul fenn waaye li fi nekk fii fii rek la nekk fii li fi nekk du ma ni nekkul fenn de waaye di nekk fii fii rek la nekk gis nga sëriñ Babacar Sy radiyallahu taala anhu li sëriñ Moustapha doon wax yépp ci wàllu ndaw alxaaji Pam Maxtaar wax ko sëriñ Babacar wax ko dama leen di indil rek seen tënkum maam bi ca la mu meloloon ci Cheikh Ahmed Tijani waaye boo ko abbee moo nekk ci xadara bi tey mu ni rid wirdahu l adba العذب لا تدجر بذا أبدا إن المناهيل تهمي من مزايا خذ عمة مزايا بل دارت زوايا عمة مزايا بل دارت زوايا لخجا قورد ورده العذب لا تتجر بذا أبدا إن المنافيل وهبي من مزايا لفالحمة مزايا بل دار زاوية عمة مزايا بل دار زاوية افلمني فقل لي من في قي يا سي شيخي مجتهدا قد عز إدراك ما يحويه معناه أمة ما زايا بل دارت زواياه بحر فليس العقل يدرك ما وراء طور الحي يا لو كان يهوى فانرد ورده العزب لا تجر بيزا ابدا ان المنازل جميل fa tabaarakallaahu Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha jërëjëf ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm waaye ñu ngi lay ñaanal yàlla kàddu yi nga jiital suñu kàddu la waaye ndigal li nga jële ci sa wëyjur tedd wa sëriñ Abdul Aziz yal na yàlla yokk leeram fa mu tëdd ba rot si ci xalifa bu tedd bi jox la ci ndigal ndigal lañ la ci joxe taxawal nga ko ba mu mot ñi nga ko bokkal ñépp kër gi nag këru xam-xam la ni ko alxaaji maxtaar waxe bokk na ci radiallahu taala anhu jëfam yépp bi siyaasati salafina alsharciya fi hadihi alxadarati rabbaniya almuassasi almuassasati ala alilmi wa taalim wa tarbiya wa daawa ila allahi bilxikmati walmawcidati alxasanati loolu moo sos kër Seydi El Hadji Malick jàng jàngale liggéey ak jaamu yàlla la rek ci nga xam ne ñu ngi liggéey ci wàllu tariqa mu ni bu leen yokkat abadan wird wirdahu lazab la tadjar bida abadan ndax inna almalahila tahmimi mazayaw du déy du du du ngiis ndox mi sell na rootuwaay bi set na bu dee baak nga bëgg am na bu dee pot am na naana ni nga bëgg naane fexeel ba boo naanee rek bàyyi fi pot mu mel ni nag soo wooyee mbooloo mu mel nii ku nekk dina laaj fekk ndigal la mag ñi ñoo ko fi bàyyi te ndigal li jógewul ci kenn ku dul ci Cheikh Seydi Aboubacar Sy radiallahu taala anhu ndax daaira su fekkoon ni daa ira amul kenn ku nekk boo nammee sa sëriñ rek waaxu ñëw ak li composé daaira yëpp kon yow ci sa ñi ñëw daañu sonn waaye sëriñ bi dina sonn waaye bu ñu àndandoo ngir jëmm yàlla sos mu digal ñu sos daayira moom Cheikh Seydi Aboubacar mu ni suñu diine suñu tariqa suñu daayira suñu métier ak suñu ñoonu Tiwaawan loolu lay la ñëwuñu fii rek pour daje wone ni muxtafi nañoo moom ziar bi tey déedéet bésu tey bi li ci liñ ci digle ci wàll lu baax ni ku ko def dinga am tuyaaba di nga am yool mag ñu baax ñu ñu yàlla booleel fexe ba tànnal ñu bés bi pour ñoom ñu ñu am di di seeni njaboot ñu bokk fi di daje nga xam ni loolu la doon def di wuti ma sàmm ma demba boo ñëwee fii lépp fekk la fii ku ziar Cheikh Seydi Aboubacar te ñu digle na nga ziar boroom xam-xam di boroom leer ku ko ziar am naa yaakaar ni sa ziar war na naw ku ziar baayam Seydi El Hadj am naa yaakaar ni ku ko ziar sa ziar war na nangu rawatina nag ñoom ñi nga xam ne ñoo ko sosoon ñu ànd ci ak ñoom mooy suñu diine te at diinu lii wax di gis nga coow li bare na torop sëñ Moustapha wax na li ma wax ñu dégg ko nii rek jàpp ni dañ ko war a dégg rek dem wala Pape wax ko nañu fonk suñu diine fonk sa diine nag nekkul ci bu waxtu yu jotee rek nga dem ci jàkka ji julli rek génnaat balaa loolu di wér am na luy jiitu mooy laab boo xamee ni ngay laabe ba mu wér te nga bañ ko rus sa laaj ñu xamal la ko nga laab ba sell xamal nan ngay jullee xam ni ngay jullee dafa am solo de topp ci imaam sëgg si bu imaam jamu jee yow doo ko mën a gàggante kooku musibat ak suñu tariq fonk ko nit ñu ko digale fonk suñu métier fonk suñu daayira ak suñu yoonu Tiwaawan juróom yooyu def seede xaj sëñ Babacar si bàyyi te loolu la ñu sose fondement xadara kër gi muy daayira yi ak ziyaar yi fa tabaarakallaahu sant ñépp ci wuy si bu rafet bu ñu wuy si ku ñëw fii soo miinul bu baax da ngay foog ni ñu ko sosoon jóguñu fi waaye alhamdulilahi rabbil alamin yàlla yokk seen leer fa ñu tëdd lii rek moo taxoon ñuy liggéey mooy seen njaboot ndax responsabilité bu xam ni bu ëllëgee kenn ku nekk dinañ la ko laaj kon su yàlla defee sëñ Moustapha ci ndigalul wéy juram wu tedd wa sëriñ Abdul Aziz ak ñam ko bokkaloon mu taxaw ca ba suñu wayjur wu tedd wa ki fi mujj muy suñu bay bay Malick yal yàlla yokk leeram moom it di ko taxawe ba teg ko ci loxo xalifa bi mu di ko saytu di ko taxawe bu bisu tey bii mu mel ni dara mus fee jóg kon sëriñ Moustapha gàcce nga alaama yal na yàlla fay di la wax ni nag comme li nga wax juñ junj rek la waaye ñu ñëpp war nañ ci bàyyi xel yéen ñi nga xam ni yéen a amee daayira yi na ngeen gën a woowaat seen mbootaayu daayira ndax bëgg nañu balaa gàmmu gi di jot ñu gis yeneen taxawaay yu bokkale yi ñuy gis yi weesu mooy ñu gën a taxaw gën a bennoo xam ni kër gi kër Seydil Xaaji Malik la lu fi nit am yàlla ak barke Seydi Hadj Malick moo tax nga am ko nit nag la la mu am la ko may du ko foye kon fa tabaarakallaahu dafa mënul ñàkk ñu yëkkati kàddu ndax ñu jiitu maak ñoom benn lañu joxe cër rek moo fi nekk waaye kenn ku nekk ba nga waxee rek lépp matoon na ñu ngi sant délégation bi nga xam ni ñu ngi jóge ci président suñu jigéen suñu soppe Aja Fatimata jiite ko yàgg ñëw fa tabaarakallahu di ko ñaanal yàlla wér ak fan wu gudd ay nizaram ay projet am yàlla na ko yàlla mottali ak kilifa yu tedd yi mu àndal gouverneur ñu ngi koy nuyu di nuyu préfet fa tabaarakallahu di nuyu monsieur le maire Alxaaji Diop Sy ak ñi mu bokkal dëkk bi ci liggéey bi di nuyu suñu soppi Seydina Alioune sal waaye di nuyu njaboot gu tedd gi fi daje yëpp limoon nañ leen tuddoon nañ leen te ñu ngi guddi fa tabarakallahu ñu ngi ziar ñu ngi balu xaq ñu ngi massawu di wax ni ñu ngi leen di ñaanal yàlla at mi yàlla bu mu nekk suñu mujj at lépp lu ñu rawoon ci at ya passé yàlla nañu ko yàlla dabul ci suñu at mi ci wàllu diine ji ci wàllu tariqa bi muy muy at mi nga xam ni wax nañ ko léegi mooy atu gàddaay gi ci la yàlla baaxe woon yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu jóge ca noon ya yàlla muccal ko mu dem ca madinatul munawwar muy atu hijriya yeneen yeneen yi ci des yëpp yàlla ci la leen jotale jote seen bopp ba ñoom ñëpp ñu mën a dellu ci seen borom loolu mu mayoon yonent yooyu nag yal na yàlla may ñu ko ñun ñëpp ci barke Seydi Haj Malick ak njabootam ñu ngi ziar ñu ngi balu àq ñu ngi masawu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.